am bu wér xam ngeen ne boobu ba léegi ñu ngi fii ci kër Abdoul Aziz Ndiaye muy màggal guddik yonent bi gis ngeen nag ni mu koy defee di ko bokk mbokki jullit yi bokkoo mbokki jullit yi moo waral nag yi muy rey ñu koy def ay mbuus kenn ku nekk ñu la koy jox nga mën cee màggal guddi Abdoul Aziz ñu ngi lay nuyu di la ziare waaw jërë ngeen jëf alhamdulilahi rabbil alamin ñu ngi leen di nuyu bu baax di nuyu ñu ñuy seetaan yëpp di jiital ci nuyu bi la xalif général des Tidianes Serigne Babacar Sy Mansour di nuyu njaboot Seydi Hadji Malick yëpp ak jullit ci Sénégal yëpp Euh, di nuyu aussi suñu kilifa suñu xalifa suñu papa suñu lépp Massata Ndiaye mi taxaw suñu wet mhm. gëm naa ne li ñuy wax aussi ci ndigalam lañu koy waxee ànd ceeg njaboot gi yëpp ak Baye Ndiaye ak xaritam yeeg yëpp ñu nekk fii vraiment ñu leen di bu baax a baax. ñu ah, ñu gis na chaque année comme ni nga koy defee bu gàmm bi ñëwee hmm. dangay ngay daal di yëkkati li nga xam ne moo di ay nag distribuer ko euh, kër diine yi waaye itamit néew ji doole ji nga xam ne eh, ñoom ñoo nekk biir Tivaouane ci la ñu bokk mais ñu gis ren lépp loo doon def da nga ko daal di doubler dem ba tripler ko lu waral li ni mel. waaw alhamdulilah sant yàlla bu baax xam nga ñun moom comme dañu bëgg a nekk ay taalibe ba pare aussi. Euh, lii ñuy def nii rek comme ni ngeen ko xamee euh, leeg familial la boo xam ne suñu ay maam suñu ay waajur ñoo ñu ko bàyyeel mhm. ñu war ko perpétuer war ko continuer te loolu nag suñ ko bëggee def li olof di wax rek ku yokkul da ngaa wàññi dañu ànd ñun toute la famille affaire bi ni ngeen ko gisee nii li muy réeréeréy du man dañ ma ci tudd rek waaye dama ko ànd ak suma ay mag suma ay rak toute la famille ñoo ci jàpp ànd ci di ko liggéey mu nekk loo xam ne leeg familial la moo tax bu buñ ci defee benn daaw ren dañuy bëgg a tripler wala multiplier rek ngir jëmmi yàlla subhaanahu wa taala. màggalu gàmmu 2023 nan nga ko fas yéene préparé. waaw gàmmu 2023 ñëpp xam nañu gàmmu bu metti la ci ñun parce que ñun tey c'est la première fois ñuy gàmmu depuis notre naissance ñun ñii ñëpp. Mm-hmm. muy suñuy mag ak suñuy rak c'est la première fois ñu gàmmu te bokkuñu ko suñu waajur bi nga xam ne lii ñuy def moom lañu koy defal. Mm-hmm. vraiment lu metti la lu tiis la mais tam dañ koy sant yàlla mm-hmm. su ngeen gisee moo tax. communication bi sax bariwul bariwul lu ñuy wax parce que li nekk suñu ay biir xool dafa diis. mais vraiment daal jàpp leen ni gàmm bu métti ci ñun la mais sant yàlla aussi. parce que ñun li ñu mën a wax rek mooy nu some des résultats de notre père. ñun amaguñu benn résultat ñun defaguñu dara li ñuy def. suñu résultat papa la. Mm. moom moo liggéeyal suñu borom ba yàlla fayee ko njaboot goo xam ne ginnaawam ñoo ko taxawu di def lu mel nii. Mm. ñun defaguñu dara amaguñu dara. Mm. ëllëg suñu ay doom màggee la ñuy xam ne vraiment ñun est-ce qu'on a travaillé ou pas. mais li ñuy def lépp c'est un legs familial de notre père. macha allah ban taxawaay la daan taxaw ki yow bu gàmmu daan musaan ñëw ba tey jii mu manqué la. boo toogee di ko xalaat sa xol tooy. waaw comme ni ma ko waxee woon ñëpp xam nañu ñun wax nañ suñu papa. Hmm. Euh, Massata mi nga xam ne mooy taaw. Hmm. tey di xale moom moo ñàkk papa parce que ñun hmm. ñàkkuñu papa. parce que nous on a vu notre fi sam papa daan teg tànk Massa ñaar la fa teg. lu sama papa daan def tey benn massa def na ko ñaar nous on pas vraiment wéetuñu mhm. parce que moom moo nekk au devant de la scène di def lépp ñun dañu nekk ci ay ginnaawam être que moom moo am vide mais ñun amuñu vide sentiruñu ko parce que masta est là mhm. nos autres frères sont là donc ñun on n'a pas problème mais mhm. sant yàlla nag quoi ci suñu biir xol am nañ ci tiis am nañ ci métit mais bu ñu geesoo yam ci massa sax suñu xel dafay dal vraiment Abdou Aziz Ndiaye kenn mënu ko wax te mënoo tudd Serigne Abdou Al Amin waxoon na la bu ñëwatee dee ko indi ma ciy làmmiñam lu barkeel la ba tey lii nga indi nii kenn ku nekk Tiwaawan ñëpp ñi ngi ciy sàkku sa digganteeg Serigne Abdou bu ci sa xel demee. waaw Serigne Abdou mooy suñu lépp ku ne xam na ne ñun vraiment Serigne Abdoul Aziz Al Amin yàlla moo ñu boole woon ak moom mu nekk ñu sëriñu baay nekk suñu sëriñ ñun ñëpp bi mu fi jógee njabootam nekk suñu ay sëriñ kon wax dëgg yàlla ñun euh, suñu digganteeg Serigne Abdou lu profond la woon lii ñuy def dañ ko initier woon devant suñu papa moo ko doon def ak moom depuis 1974 suñu maam doon ko def ak Serigne Babacar depuis 1923 kon boobu ñun dañu ñëw rek pour continuer nous on a rien créé ñun dañu ñëw rek tegu ci yoon bi ñu suñu ay waajur tegoon ñun créé wuñu dara dañu fexe multiplier wala dëgëral ndono gi nga xam ne suñu ay maam ak suñu ay baay ñoo ñu ko bàyyeel mais nu on a rien créé on a rien inventé on a fait juste que topp ci ndigal bi ñu suñu ay waajur tegoon loolu rek lañ nekk loolu lañ nekk di def mais Abdou Aziz ñu ngi lay jàmm yaakaar naa ne ngay référence ci réew mi hmm. di référence ci këru diine yi di référence ci jeunes yi nga xam ne ñooy nekk ci àdduna bi yëpp di gis hmm. li ngay def ci këru diine yi yëpp tey yaakaar naa ne bés bu mag bu toll nii lan nga ciy wax ndaw ñi nga xam ne tey jii ñu xool Abdou Aziz bu ko def référence ci réew mi benn kàddu la ñuy la Abdou Aziz di wax yoo xam ne tey jii bu ñu ko déggee dinañ mën a ci am jom dinañ ci mën a wéeru ngir ëllëg seen àdduna mën cee baax waaw ndaw ñi ak ñëpp damay jéem a joxe conseil rek mais pour être un référence c'est très difficile bon nit ki moom yaakaar naa ne moom mooy xool ki nit ki doy na ko référence mais pour di def dara yaakaar ni yow référence nga pour nit ñi c'est très difficile avec bon modestie à part moi je je dis pas que référence là mais li ñuy def day montrer rek ni ndaw dafa war a am kilifa comme li ma wax sànq nous on a rien créé on a rien inventé lépp dañ ko fi fekk ndaw ñi nañu am kilifa xam ni seen ay waajur seen ay maam liñ leen fi bàyyi bu ñu ko toppee tegu ci yoon boobu lépp loo xam ne bëgg nañ ko ci seen àdduna dinañ ko am nous de ce que nous faisons mooy topp ndigalu suñu ay waajur ba pare topp mag ñi mag ñi suñ ko waxee mooy ñu mel ni ay Seydil Hadji Malick suñu maam borom Touba maam Baye Niass Seydina Limaamu ak ñeneen ñi mel ni ñoom Cheikh Oumar ñun ci loolu lañ bëgg a nekk parce que vraiment ñun daal li wax ndaw ñi mooy nañu fexe am kilifa am kilifa daal yaakaar naa ni lépp lu waay bëgg te bëgg koo def bëgg a tekk ci sa àdduna wala sa àdduna jàkk ëllëg fexeel ba am kilifa dëgg dëgg kilifa soo ko amee doo réer kon jeunesse bi ba ñu fexee am kilifa rek te nangoo léegi ndigal le reste yàlla moo ko yor subhaanahu wa taala Abdou Aziz ak social ñu ngi noor mais gis na bi nga ñëwee dëkk si fii ñi mboolee ku dëkk ak yow fii bu bis bi jotee dina gis boppam ci waaw sant yàlla rek boo xam nga tey moom social moom dafa war bépp jullit ak bépp doomu aadama mais li ci gën a am solo mooy lii ñuy def ñun ñëpp nañu fexe ba bañ ci gis suñu bopp ba ñu fexe ba mu bañ a rëy suñu bët na ñu fexe ba bañ ko jël di ko ndamoo wala di ko bàkkoo lii ndimbalu suñu borom rek yàlla mooy doom dimbali doomu aadama wala mooy dimbali benn famille pour ñu dimbali yeneen doomu aadama yi ñun daal li ñuy ñaan te di ko ñaan mboolem jullit yëpp mooy ñu ñaanal ñu ñun suñu famille yëpp ak mboolem jullit yi ba lii ñuy def yàlla buñ ci gis suñu bopp gis sa bopp nag mooy def dara yaakaar ni yow yàlla moo la yow yaay tu es super héros fi y li fi am mooy ndimbalu suñu borom moo fi am jàmbaar amul ko yàlla dimbali moo am te yàlla yàlla dimbali ñëpp ba ñu fi ñëw ren bu ëllëgee yàlla kàttanal leen ba li ñuy def ñoom ñu mën a def lu ko ñun loolu la ñuy lool lu loolu la ñu yéene Sénégal yëpp secret de Aziz Ndiaye ba lu mu teg loxo yàlla def mu daal di am ndam gis nañu liggéey jumaa ji ñëpp dañoo ne woon tekk waaye bi ah. Aziz jógee li nga xam ne moo di mbëbët bi ngeen amoon dañ ko daal di romb ba euh, képp kuy julit du mën a tijaan daal di kontaan am mbégte euh, ci li nga xam ne nag moom la Aziz Ndiaye def ci liggéey jumaa ji waaw fa tabarakallah sama la yi na yàlla nañu musul ci cat ndax cat tam dafa sew cat baaxul mm-hmm. xam nga nit moom mënul dara mm-hmm. ñun amuñu dara de soxna si yàlla moo ciy teg loxoom rek ci mbir yi ñun bu ñu def dara ba gis ci suñu bopp li ñuy ñaan yàlla mooy lépp luñ dugg yàlla na ci yàlla teg barke ñun suñu ay mbir fi ñu ko teg mooy am kilifa rek dama gëm ni nit su amee kilifa lépp lu mu bëgg ci barke yàlla mën na ko defal te barke mag ñi mën nañu lu ne moo tax tey bu dee jumaa ji wala leneen c'est loolu devoir la de tout un citoyen devoir la de tout un sénégalais le plus important dans ce pays mooy il faut être utile à ta communauté mooy tarixa bi nga bokk il faut être utile à ton pays il faut être un serviteur de ta nation loolu moo gën a am solo te ñun vraiment notre slogan c'est d'être des serviteurs de notre nation nekk ñoo xam ne tey dañuy wax ni am na lu ñu defal suñu réew vraiment que loolu lañ bëgg a doon citoyen modèle un citoyen boo xam ne mm. il doit être utile sa à sa à sa nation et à son pays te yàlla nañ ko yàlla boole defal a mboolem merci beaucoup ah, jërëjëf balaa eh, tam joxe mm-hmm. ngi di jógee fu ne kenn ku ne di jël wërsëgam jëf juré ji boo ko dee jëf en tant que jullit nan lay def ci yow kenn ku ne yaakaar ci yow <laughs> te doo tas xam nga mbir mi moom ah. kii joxe war na bég ah. mais ki moom dafa war a sant ki muy jox ndax nit ki jël moo la permettre yow nga mën a def te yàlla tax soo yoroon dara di ko joxe te amoo ku ko jël doo am yiwu yàlla ñun dañuy remercier nit ñi nga xam yëpp dañ fiy ñëw di fi jël si dara ndax ñun ñoo leen amee njukkal parce que ñoom ñoo ñu permettre ñu mën a def te yàlla tax kon ñun ñi ngi remercier képp ku ñëw tey jël ñu ngi sàkku ci yàlla subhanahu wa taala ren jëw ñëw bi nga fi ñëw jël si bu déwénee yàlla nga bokk ci joxekat yi loolu moo ëpp solo quoi le reste nag ndimbalu suñu borom la yàlla nañ ko yàlla boole defal ñun ñëpp le dernier mot ban message ngay jox képp kuy taalibe bu jóge fépp ñëw ci biir bërëb bu sell bi wala tamit ñëw si sa biir kër ban dernier mot yiwu yàlla bi nga fi wut si yàlla na la ko yàlla jox képp ku déplacé wu ci sa kër ñëw fi boo delloo yàlla na la yàlla may jàmm ak salaam jàmm ji nga fi ñëwee yàlla nga ko delloo te lépp loo fi wut si yiw yàlla nañ ko boole ak ñëpp fii daal li fi yiw tey yërmande tey xéewal yàlla nañ ko bokkee jullitu yàlla yëpp loolu la ñuy ñaan wasalaamaaleykum wa rahmatullah